di eh, amu métit lool ak eh, woo xam ne ndogalub suñu borom tabaraka wa taala la ndax eh, taw biig bi dafa ñëw nekk cent quarante millimètres cent quarante millimètres nag dafa bu wàccee benn yoon dafay nekk volume boo xam ne dana am dana ëpp doole capacité réseau assainissement bi nga xam ne moo fi nekk bu ma wàccee nag réseau bi dafa fees bassin yi fees bi réseau bi feesee bassin yi fees bassin yi euh, regard yi day obligé di refouler bi mu refouler nag muy muy muy retourner di dem ci point bas yi am na benn kër boo xam ne nii xëy na dëgëruloon maanaam di mu di ko rewanci di ko rewanci ba bâtiment bi du daanu bi bâtiment bi daanu nag fekk na ñaari nit ñi ngi ci woon ci nee boobu muy benn nee bi jot a daanu bâtiment bu gudd la mais benn partie bi moo wàcc ba mu fi nekk nag am ñoo xam ne suñ borom dafa dogaloon ñu jege Fuuta ñëw fii di liggéey ñëw luye woon foofu ay locataire lañ nekk bi muy sàmba Ba ak Magam Samba Ba nag moom la yàlla dogal bi bâtiment bi daanoo ba kanam des ci Samba Diallo ba kanam des ci yàlla dogal na mu àndoon ak Magam mag ji nag dafa euh, blessé indi nañ ko fee hôpital Ndamaatu ñu ngi nii ànd ak euh, la euh, honorable député Serigne Cheikh Thioro ak monsieur le sous-préfet ak ak adjoint maire yi ak famille bi nga xam ne ay bokkam lañ ki mbokkat benn baay ak ñëwee nag malaat bi évacué waat nañ ko jëlee nañ ko hôpital Ndamaatu évacué nañ ko hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu ngi woo sous-préfet woo ne directeur hôpital bi pour ñu taxawu ko néew bi nag la ñuy xool ñoom famille bi ñooy ñaan ñu leen jàppale ci néew bi ñu yóbbu ko Fuuta mu ngi dëkk Galayaabe Galayaabe mi ngi ci région de Matam ci département Kanel ci boo génnee Ourossogui Ogo commune de Ogo foofu la ñu dëkkoon dañoo ñëwoon fii di liggéey si yëf yi nag di lu méttee métti ndax ndox mi bari na dëkk bi yëpp ñu ngi dund lu méttee métti bi ñu xëyee it liñ ci war def yëpp def nañ ko xalifa général des mourides di massow mbooleem taaliba yi nga xam ne ñi ngi dund métit yi waaye aussi ministère bi nga xam ne moom la ñu euh, si dénk lépp lu jëm ci wàllu inondation muy sëñ Cheikh Tidiane Dieye ah ci fajar ba nëgg ni ñi ngi jokkoo ak moom ak personnel am bi fi nekk muy directeur ONAS ak ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ñu ànd wër nañ mbooleem dëkk bi dëkk bi nag fépp la dañ daan wax quartier yi ñeenti quartier yi ñoo ëpp problème tey nag dëkk bépp la ndax boo demee ci jumaa ji ci kër ci résidence bi ma nga fees dell fa lañ jóge dem boo demee ci kër sëñ Saaliwu kër sëñ Motala kër sëñ Abdou kër yu mag yi nga xam ne kër sëñ Fallu mboolem kër yi nga xam ne ñi ngi wër jumaa ji muy doomi sëñ Tuubaa yi foofoo ngi fees dell dëkk bi yëpp moo fees li ko waral nag réseau bi moo fees bassin bi fees ba nga xam ne wëlim bi nga xam ne li nga xam ne moo wàcc ci ndox loolu mënu ko jël pompe yi nag taal nañ pompe yëpp pompe yëpp ñu ngi évacuer waaye nii ndox mi toll mënul gaawe noonu donc état bi it léegi la ñu jokkoo ak ministre de l'intérieur ak sëñ Cheikh mu ne waaye ne waa sapeur pompier ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci assainissement yëpp ñu ngi jëm si ci dëkk bi waaw loolu daal la demee